wasaare kon maa ngi leen di siyaar Fall Ndiaga Baye Fall takk jóg maam lamp àjjana Fall kii ñoqal yi bëtt ku lu dina naan fes fes men dañ naan may ci maam maa ngi leen di siyaar lu yaatu da bëri maangaan këpp gi ñëpp xam ne barki maam Seydi leen di bégee lu yaatu lu bëri naan yàgg leen yóbbu leen wér leen dund leen defar ko dul yàq yàlla lu sax bi gën a bëgg maam da koy gën a yëg maam yàlla laa leen tegal ma naan yàlla maam maam maam Seera Fall waaw ñu ngi leen di cuujoo cuuraayoo di leen parfum di leen raayoo waaw di leen sëlëmoo waaw di leen muuroo nag di pikiroo sunu maam di leen cuujoo naan yàgg leen yokk leen wër leen waaw si sa sax war na moo tiitoroo rek mu tàngale ngi rek mu sarmada manda bëtt ci leer waaw nee naa leen maam moo fi moom keneen lu fi moom moo daan keneen dootul daan ko ko nangulul da ngay sonn kaas ba dee rek Sénégal da ngeen a war a nangul Ahmadou Borom Jaam yi gëm ko xam ne moo leen moom mu neex leen mu naqari leen naan seen rafaal point na leen di tegal